maa ngi lay sant Seynabou ci laaj bi ma laaj mais avant ma lay tontu bëggoon naa remercier euh, sénégalais yi ak sénégalaises yi d'ici et d'ailleurs c'est vrai que ba fii sama borom kër nekkee président ba léegi musuma wax ak presse sénégalaise bi dama doon daw lu bëri parce que dama doon wax ni moom mooy président man awma pour di wax ak di waxaan mais au bout de 8 ans gis naa ni am ay indi par rapport ak sama fondation par rapport ak sama doxilin ci sama fondation c'est vrai que amna fondation depuis 8 ans fondation si aussi bu ñu remonté man bëgguma won am fondation parce que gis naa li ñuy wax ci fondation yi ak problème yi fondation yi di am motax musuma bëgg am fondation j'ai toujours Faire du social dama veux di continuer sama social sans pour autant mettre en place fondation mais dañuy wax ni mënoo def yenn te am fondation fondation bi euh, c'est une fondation un peu atypique parce que fonctionnement am bokkul la fonctionnement fondation yu bari première voilà parce que dafa am man nu ko sentiré. Nima ko sentiré moy dama jóg ni damay def sociale damay jóg ni lii xam ni eh, yàlla jagleel na ma ko dama ci profito pour jaamu si yàlla booy jaamu yàlla nag ci dara do xaar dara ci nit te du ànd ak bruit yu bari sax yuy feeñ ak yi ñuy feñal parce que dafa am benn dama mësa a sant ak benn femme bu nekk ci ben organisme international mun ma yow kenn xamul loy def sa jëkkër a ngi nekk fii président yaa ngi am fondation mais xamuñu exactement looy def boobaa ba mu ba ma waxee loolu ba ma ñëwee ak ñi may liggéeyal mën leen de temps en temps yi ñuy def ñu ciy feeñal tuuti mais génnewu ma lépp lu may def ci fondation bi tey bu ñu ko doon xayma ak di ko wax duñ fi jóg parce que loolu damay jàpp ni sama diggante ak sama borom la la preuve fondation bi du benn nit c'est vrai que am vice-président c'est c'est bien structuré mais fondation bi ñi ma ciy yónni ñi may doxal du benn nit kii dama koy yónni qui kii ma yónni ko lale kee ma yónni ko lale parce que bëgguma ñu xam en réalité li may def ci ci nit ñi lan la ndax sutura parce que am na nga xam ci sutura nga mën defanteeg ñoom waaw fan yi aussi ñoo ngi dégg lu bari yu ñu tuuma ci fondation bi man dama mës wax ni fondation bi du bind kenn du gis fu fondation bi bindee demander quoi que ce soit mësuma ko nangu duma ko def lu ma soxla ci fondation bi sama borom kër mi ngi ma ci jàppale mi ngi ma si jàppale bu maladie bëree mi ngi ci dugal loxoom bu ma soxlaa lu mu mën a soxla moom mu ngi ci jàppale am na nag ay quelques bon volontés yu nga xam ni dinañ ma jàppale ci ceeb ci dëwlin ci suukar mais lu ci ëpp li may def lu je sama borom kër mo ci duggal parce que comme mel vice président de di Alioune Fall bo ñëwé ni que dama première dame nga nekk homme d'affaires wala nga nekk ya xam lo doon dama fondation mais dama bëgg gis première dame parce que damay bañ ëlëk ñu ni homme d'affaires bi kat ñëw na fi wala ki ñëw fi première dame bi wala nang ñi ci ëpp fii la ñu nekk ci réew mi Sénégal yii lañ nekk des fois ma jékki-jékki ñu woo ma ajaa ah, ñoo ngi lay yónnee ceeb diwlin suukar te ñëpp ñëpp te ku ko ci yónnee aussi di nga xam fu muy delluwaat. man du ma sollicité kenn duma ko def waaw damay bu ma nit ñi lu ñu bëgg besoin yu nit ñi di ma demande parce que fondation bi am na un jour def nañ ci benn reportage je crois dañuy recevoir demande yu bëri. léegi sax dama focaliser wu si maladie xeebaluma kenn soxlaam mais léegi ci maladie lay gën a dem parce que maladie ñoo gën a bëri am na yenn affaire moom du ma si dugg des fois ñu bind ay affaire ay nangam ak nangam du ma si dugg sax du ma xebal kenn nag affaire am mais du ma si dugg lu ma xam daal mooy man damay focaliser wu ci maladie te bañ trafic d'influence moo tax ñi ëpp chance que seen affaire ñu régler ko mooy ñiy yóbbu directement ci fondation c'est ouvert Goudi bëccëg bu ku duñ la fait. sa lettre duñ enveloppe dinañ ko jël jot. daf parce que nit Sénégal nit mënu la indi ci man depuis le début dama ko bañ ku ku la ni mëna la ji wutal audience ci ce que Sall dalay dina ci dëkk bi fii laa yaroo fii laa juddoo am naa ay xarit am naa ay àndandoo am naa ay lépp mais tout fois ku am looy soxla ci man fondation bi toujours nit a nga fa boo joxee sa lettre dinañ ko jot. li ñu mën daal li may def maa ngi def sama kettu laay kàttan di jàppale doomu aadama yi seetuma ci kii seetuma ci kala bugguma sax ku ma remercier yàlla xam nag lu may def rek sunu borom si laay jiital bugguma sax ku wax merci lettre de remerciement du ma ko jël xam nga. du si xaar dara yalla rek benen affaire bi mooy euh, fondation bi ku fa heure bo ñewé bo déposé sa lettre danañ ko jël seulement ci maladie la focaliser wu parce que maladie dafa bari taxul nak ma ma xeebal kenn soxlam xébaluma kenn soxla mais jamono yi ci maladie la gëna nek nekk moo tax des am yenn réponse mais ku ci am indi kayitu feebar wala ordonnance di nga am réponse du man fondation bi mu ba dafuma kermesse dafuma téléthon dafuma dara lu nga dara indi dafuma ko dafuma ko Dieu dara indi pour rek di éviter yu mel c'est vrai que ni ubi compte ñu dafa am nga ci ay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 dañuy dañuy dañuy dindi lépp. bu rafetal wax ji neel dañuy waxoon dafa dof dañuy wax lu leen neex rek parce que tey dangay gis ku fi ñëw añee wax dama lañ koy wax sax dama naan ku fi añee sax déjà boo fi añee ak man wala nga añee président bu ma génnee dëkk ci kenn dama naan du dëgg. waroo génn di jaay loolu ci nit ñi. dama fay dem fa lekkee fa laay naanee falaay laay nangam loolu sunu affaire la. ça n'a rien Waro ko waro ci profité et puis nit ñi waruñu ko japp nit ñi waruñu jàpp loolu boo añee président ak boo añee première dame lool et alors de façon kenn si ñom kenn kenn nit mënu la indi ci man mënu la wutal audience ci man parce que nanguluma ma ko kenn nanguluma ma la même au niveau de la fondation ku ku fay liggéey ku ñu jël papier jox la pour nga duggal ko bu ma ko yégué dama koy dindi pour bañ rek nit ñi di def trafic d'influence man damay dem ci nit ñi damay dem ci kër mën naa fa añee mën naa fa reere mën naa fa toog xam nga mais du tere ça n'a rien voir ak leta wala yeneen wala leneen ku la wax ni aussi mën naa la wax première dame jox ma xaalis ma yóbbu la fële ña wasal ay passeport diplomatique man nekkuma si loolu kun ko wax aussi dañ lay nax wutaluma kenn passeport diplomatique des fois dinaa romb nit mun ma dem dama feebar waxal président ma dimbali ma ci passeport moo dem ma mun naa ko soumettre président activité parce que lu yéeme la